non loolu la na dina vraiment comme moom moo ko tabaxoon moo xam fa lakk. gëm la. ndax ñorom ñetti waxtu salaamaaleykum li gën fees ci bopp xibaar yi crise euh, scolaire bi nga xamante ni bii fukki semaine fukki semaine yoo xam ni kenn jàngiwul defuñu évaluation ni jàng loole nag metti na lool ñi nga xam ni ñooy gouvernement scolaire bi ba tax tey 9h daañu wàcc ci mbedd mi ci obélisque lañ joxante dox daje incha allah ngir manifester di ngeen dégg réaction koo xam ni nekkoon na ay jamono secretaire général bu SAEMS CUSEMS jàpp na ni situation yi fi nekk nii dafa catastrophique Euh, coordination bu opposition bu pikin moom itam dana dox doxu ñaxtu aljuma bi ñu mël la muy exiger mooy ñu respecter li bàyyeekoo ci élect euh, électorat bi ñu weesu nit ñi nañu tànne nekk nañu fale nañ ko respecter foofee ca département bu Pikine Cheikh Dieng ak ñi mu àndal tey jii la ñu gën a dénoncer ni élection yi am na càcc sport bàyyi ma Anta Mboup moo koy faram ci xibaar yi yéen i kaay Mantoulaye Thioub Ndoye faram-fàcce gi Mame Mbaye Ndiaye Voici Trafic News. Papa Aliou Cissé. oui Yacine. oui nekk. Euh, voilà merci beaucoup Yacine di wax ne rek beaucoup d'embouteillage mu leen di xaar sur l'autoroute surtout nag ñi nga xam ne nii ñoo béy ko sorti péage bi ak euh, wala sax ngeen di côté de Cambérène ba ci Padoa wat yu bëri ñooy jaaree foofu la ba tax na da ngeen am jafe-jafe daal wees circulation tranquille daal di wuti lii nga xam ne moo nekk pont bu pont bu Hann jàpp Colobane foofu na bu dee nag rond-point Stade de Maris foofu la aussi xaar leen fa des lentes tout autour du point bi am ngeen nga xam ne ñoo bëgg dem du côté de cité des eaux foofu la aussi ça progresse tout doucement naka noonu aussi sur le côté opposé maanaam ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàllal daal di wuti ligne boulangerie Kappa laata ngeen a accédé au niveau du service technique foofu la aussi watu yi takku neen lool ça circule lentement pour le moment yaa eh si wala wala tey da ngay toog commenté. <laughs> déedéet commenté wu ma <laughs> jaajëf bi dañu koy door El Hadj am sam benn euh, cousin Amadou nee na secteur yi nga filim yëpp dëgg la ay jafe-jafe rek la ñuy jànkonteel. rawatina wàllum agriculture nee na mathématicien la ñu ko dénk. Amadou Fall. aja wàllum <laughs> jàng mi la ñu koy doore parce que gars yi dañuy réagir ñoom it euh, te si matinal bi la ñu bokk euh, wàllum jàng mi xam ngeen ne kon gouvernement scolaire yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum jàng mi jamono ji nee na ñu tey jii euh, ñu ngay joxante dig daje bu juróom-ñeenti waxtu jotee sa place de l'obélisque ñaxtu la ñu woote ñoom ndongo yi ngir nag sàkku ñu delluwaat ci classe ya sàkku it ci diggante gouvernement ba jàngalekat yi ñu ci ak saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonteel mu mel kon la ñàkk ci waxtu te waroon koo des si classe yi loolee ñu xool nees koy mën a def euh, ba ñu euh, man koo dabu loolee la jàngalekat yi sàkku ngir nag euh, bu ñu sekkee waxtaan ñoom jàngalekat yeex bi ak saafara daal di say juddu doxum ñaxtu bi kon dañu ko autorisé waaye jàppale ne fukki euh, ay euh, ay bés euh, dix semaines la ndongay toog jànguñu amul évaluation dem ñu sa classe ya loolee catastrophique la ñu ko mën a dàkkantalee Mamadou Lamine Diante mooy ni gisee nekkoon na fi secrétaire général bu SAEMS si CUSEMS nee na nag loolee si quantum horaire bi pertement bu mat sëkk la te loole jot na it nag ñu dànxaafu ngir wooteeg wàllu ñu teewlooy kàddoom wax ndey di me ndaw oui euh, li ñu defoon ci assise de l'éducation et de la formation daanaka liggéey bu am solo la boo xam ne professeur Abdou Salam Sall euh, ancien recteur de l'université de Dakar ak ñi mu àndal def nañ ko ci diru at euh, mu am conclusion yoo xam ne jëbbal nañ ko nguur gi président de la République jëloon ci fukki dogal ak benn booba bi ñuy jox nguur gi conclusion assise de l'éducation dañ ko defoon ci disque dur maa leen doon tooñ sax ne leen waru leen def lii da ngeen waroon bind ci kayit ngeen jox leen parce que boo leen ko boo ko joxee ci disque dur dañ koy ranger te yàlla def na loolu noonu la amee parce que en réalité décision yi jël foofu yëpp ba léegi kenn appliqué wu ko dañu dee seen di xam Mamadou Lamine Diante nekkoon na it coordonnateur bu grand cadre des syndicats moom la mu xam le moo di boolu jàmbat la nga xam ne euh, jàngalekat yi ñu ngi koy indi jot na nag ñu teg si taabu ji lépp yu yàgg yeex yu yees ngir ut ak saafara ba faw ay kàddu la mu dénk day di mendaw ba tey nga bu enseignants yi defee dix plans loolu mooy pour sénégalais dégg ko mooy fukki ay bés lañu toog jànguñu nattuñu élèves yi loolu loo ci yokk rek ci année scolaire da ngay yàq année scolaire bi il faudrait que d'abord nguur gi am conscience ne pour yëf yi toll il faut mu arrêté sénégalais et syndicats yi également war nañu mën a yaa dënn pour mën a déggoo ak nguur gi mais man bu ma nekkoon seen place am na ñaari yëf yoo xam ñetti yëf yoo xam ne mën naa ko exiger nguur gi pour que bu ma jàkkaarloo ak sama naataango yi ma wax leen ne lii la ñu am ci nguur gi te nan la ñuy fexe léegi pour delluwaat ci classe yi mu ngoo kon waxtaan wi jàppal ne kon tey ndongo yi élage eh, dañuy wàcc si mbedd mi fii ci doon Dakar dañu ko autorisé nag eh, sa place de l'Obélisque ngir ñaxtu seen bëgg-bëgg moo di delluwaat ci classe yi. tàmm nañu tàmm nañu ay eh, bépp manifestation bu ñu leen demandé de surtout bu dee ay marche mais xanaa bii moom mënuñu ko ñàkk bañ a autorisé. parce que am réew moo xam ne nee na dafa jox valeur ay ndawam. tabax stade bu ñuy ndemoo ci plus de cent cinquante milliards. am réew mu ni dafa jox valeur ay ndawam ni tabax na am na yéene tabax ay université ci ay gox yu wuute am réew mu ni dafa jox valeur ay ndawam ndaw ñu toog fukki ayu bis yoo xam ne jànguñu ci ay mbii mballoo ak bang bang diggante syndicat ak gouvernement te mënuñu ci am solution ndaw ñooña bu ñu bëggee ñaxtu génne lu leen mer génne li leen metti ci mer ku leen ko aaye defe naan da ngay xaru donc faaw fu ñu bàyyi leen ñu manifester ak képp ku bokk ak ñoom xalaat képp ku bokk ci société civile maam marché boobu bokk na ci marché yi nga xamante ni bii képp ku mën di doon war na laa tax nga jóg ndax bu fekkee xam nga valeur xam-xam ci askan ak ni ñu ko bëgg a fowee ni ñu ko bëgg sàggane maam xëy na wax ci diggante gouvernement bi ak jàngalekat lu jafe lay doon parce que kenn mënut a wax ba jeexal jeexali nekk ci biir Birahim mu ngi junj sànq ci institution yu mag yi nga xam ñoo ñuy financé fi ñu yemloo Sénégal wax naa ko fi waxaat ko fi waxaat ko fi nee am naa jàngalekat yoo xamante ni bii duñ a génn ci situation bi ñu nekk damay junj bàyyi ci biir parce que am na ñoo xam ne la ñuy fa ñuy fayee ko ñu nekk ca fa ñuy génnee salaire am na jàngalekat yoo xam ne xaalis bi ñuy jëndee matériel budget matériel lañ leen di fayee. ah ñoom si matériel bi lañ leen boole. leen boole. Ah. kooku kañ lay génne ci situation wala mu dugg fonction publique. te yooyu yooyu. kooku système de rémunération yooyu bu fekkee. Euh, waxtaan ak ay kilifa yu nekk ci biir système bi doo ko mos a xam te ñoom ñi ci nekk xamuñu ko pour dëggal li Birahim doonoo sànq xam nga kon moo tax ma ni dafa am lu lëndëm loo xam ni da nga ci wax sa xalaat mais mënu ko jàngat ba mu jeex te yenn saa yi benn enseignant ni la dama la bëgg yokk tuuti xam-xam dama la bëgg tuuti yokk information fekk yow la mu lay wax wax nga ko ba noppi mais li nekk ci xolam la bëgg a génnee parce que faaw ñu wax cest mooy noppeeguñu pour indi solution parce que dañu ñuy commandité institution yu mag yi nga xam ñu ñu tiim dañuy wax nguuru Sénégal ni muy doxalee ak fi mu war a yem ñii doon jàngalekat yi itam xam nañu bu baax xam nga kan mooy ministre de l'éducation nationale awul ci njàngale. kan mooy communication awul ci njàngale. Mhm. est-ce que xamuñu ba xam jàngalekat yii li ñuy kaas dëgg la wala du dëgg. mais bu bu bu jëf desee da ngay xam li nga man ak li nga mënul mais de tout façon am na lu nekk ci ginnaaw loo xam ne waxuñu ko maam boo xoolee étudiants yi am bac te kenn orienté wu leen ñi ñu orienté te jànguñu ñu nekk ci université virtuelle xaalis bi gouvernement bi amee université privée yi construction université yi nga xam ne noppiwul université Sine Saloum université Amadou Mahtar Mbow dudd ay université yi dul jeex ah ñu créer benn filière maa ngi gis benn benn ponkal cadre bu ñu invité woon fii muy wax benn filière bu jëm ci wàllu master ci euh, ingénierie euh, ci gestion territoriale muy tàccu di applaudir ni euh, créé nañu sax benn UFR bu bees Bambey vraiment loolu ñu ngi ci remercier président Macky Sall may laajte kii nekk ci gouvernement bu actuel nga xam ne Birahim filière boobu bi ñu ko créé université Gaston Berger bu Saint-Louis mm-hmm. am na ñu ñu ci tàggatoon ñoo xam ne su suñu âge la ñu am donc moom mi ne ci gouvernement mu ngi foog ni ñu ngi soog a créer boobu ci nguur président Macky Sall ba koy tàccu di ko applaudir ci plateau télé yi. pour wax la gravité bi mu graaw dañoo jël gis nga mbaam bul ko jox sa waay da koy jox waayam ca lay mën a yafaloo dafa am lu ci la ci gouvernement bi am lu ci rëcc jàngalekat yi mais dëgg-dëgg maam gars yi dañu bëgg a privatiser njàng mi de façon globale comme ni ñu koy defee ci wàllu santé bi ñëwee ko wax nag ndax ku jiitew askan am loo leen jiitee mhm. moo tax ñëwee wuñ ko annoncé mais ko xool ni muy doxee. nga xam ni loolu mooy li leen gën a noppal fi mu nekk nii amul benn école bu jag bu fekkee yaa ngi ci côté public alors privé bi mu ngi dox normal benn individu wala ñaari individu mënut a ëpp doole état. dafa am lu ñu namm ci njàng mi te waxuñu ko waxuñu ko ayca bu dee sauver année scolaire chaque année mënees nañu wax ne année bi dañu koy sauver waaye nag cette fois ci jàngalekat yi lu ñuy sàkku moo di ñu sauver euh, li nga am mooy régler problème de de te bu ñu waxee euh, régler les problèmes de l' dina dem au la de euh, affaire u système de rémunération bi abri provisoire yaa ngi si di nga dem ay école à l' intérieur du yu nga xam ne amuñu sax ay jàngalekat plan yi ñoom ñoo ko moom muy régime bi wala régime bu mu mën a jóge euh, ay abri euh, abri provisoire yow en en tant que enseignant loo ci mën a wax tamit gouvernement moom moo koy soppi moom moo koy solutionné mooy wut solution yow la ngay wut si sa solution sa solution bopp lay doon mooy solution yow jàngalekat bi yàlla ñi nga àndal ci wàllu système éducation euh, muy enseignant yi seen i syndicat mooy lan ci lu jëm ci ay indemnité de logement ndax dañu war a jël tax teg ko ci lañu leen di jox ci wàlluk indemnité parce que bu ñu ñëwee ne leen jox nañ leen quarante mille francs wala cinquante mille francs yokk nañ ko ci lu jëm ci wàlluk logement waaye dañ la fayeeku taxe yoo xamee ni dootoo laal cinquante mille francs dix mille francs ngay laal wala quinze mille francs loolu ñu koy ñu koy ñaxtu bokk na ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, ñi jiite yenn ci ay établissement ku ci nekk daal ci secteur boo mën a nekk catégorie boo mën a nekk moom yokkal boo xam ne la ci yokkal mais tey la situation elle est telle sànq maa ngi koy wax ci tubaab ne ni faw ñu xool nan la ñuy def ba soppi li nga xam ne moom mooy doxalin bi ba fukki ayu bés yi nga xamee ni élèves yi ñàkk nañu ko muy ci wàllu quantom horaire plus de trois cents heures yoo xam ne ñàkk nañu ko naka la def ba rattrapé ko am na ku may wax ne ma mbir mi warul yem ci euh, wàllug jël ay répétiteur wala bu ñu dellu see ci classe yi enseignants yi ñoom seen bopp dellu siwaat mën a def ay cours de rattrapage euh, ba nga xam ne élèves yi dinañ mën a nekkat au même niveau que seeni naataangoo yi nekk ci école privée yi euh, li mu indi comme xalaat mooy mais au lieu ñuy dem ci loolu mais nañu fexe ba niveler lu jëm ci wàllu programme bi ci boppam parce que programme mu Sénégal hmm. dañ lay jàngal lu nekk te bu ñu demee ci examen peut-être la nga ciy soxla lu néew lay doon est-ce que duñu xool ci biir programme boobu nga xam ne moom la ñu boolee muy public bi di privé bi nan la ñuy def ba tënk boobu la programme yemale ko juste ci li nga xam ne moom moo war a génn ci biir examen yi wala ci euh, carte nu ñu koy woowee ci euh, du génn ci euh, programme boobu li ñuy war a jox ñi nga xam ne ñoom ñooy élèves yi fexe ba ñi nekk ci privé bi nga xam ne jiitu nañu élèves public yi ci lan ci seen programme ñu tënkaat programme bi ba nga xamee ni ñu nekk ci public bi comme ñu nekk ci privé bi dañuy yemandoo Euh, ci lu jëm ci wàllu jàng bi ça c'est une solution mais ce qui est sûr mooy Mambay il faut nécessairement mhm. mu une solution boo xamee ni dañuy mën a rattraper yooyu les élèves parce que quand même dix semaines jàngoo ko je le disais tout à l'heure yamul ci ay dix semaines yi nga xam ne ay grève yu enseignants yi la mais am nga ci biir dix semaines yooyu ak yeneen i jours yoo xamee ni mais nañ la ko férié def nga fi ay euh, nuñ ko weeti ay fête de fin d'année ay une semaine ay fêtu Pâques ak yeneen ak yeneen yoo xamee ni di nga ko jël également mais loolu yëpp bu ñu ko boolee ci li nga ñàkk déjà ci wàllu sa quantum horaire mais finalement day dem ba doon lu conséquent maintenant comment les rattraper surtout ci élèves yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ay classes d'examen mhm. ak même euh, classe intermédiaire yi parce que quand am na loo xam ne bu fekkee da nga dem ci examen ñu ne la am nga bac wala am nga BFEM mais yow mu leer la niveau bi ñu la joxee BFEM wala niveau bi ñu la joxee bac wuute na loolu ak sa naataangoo bi nekk dans le privé wala nga dem ci beneen réew dans le monde yow bag bi nga am yow mën nañoo jàpp ne niveau bu néew la mais loolu baaxul sax ci éducation ci réew parce que yow li ngay mën a compétir peut-être ci lu jëm sur le plan international ci leneen loo xam ne dañ ciy laaj sa jàng mais yow niveau bi nga amee bag sa bac boobu ci boppam moo dul am valeur parce que niveau bi ñu la ko joxee baaxul BFEM boobu nga doon am moo dul am valeur parce que boo ko comparé ak mhm. say naataangoo yu nekk ci privé bi sa BFEM boobu amul valeur ndax da nga waroon a jàng wala la nga waroon a tari mhm. mënoo ko tari ndax liñ la jàngal bariwul loolu c'est boo xam ne comme tu le dis il faut pas mhm. sauver l'année scolaire il faut sauver l'éducation voilà ñu waxtaanee ba tey ci wàllum jàng mi sa université Assane euh, Seck bu Ziguinchor jàngalekat vacataires yi ñoom nag la ñuy sàkk juróom-benni weer yu nga xam ne dañ leen ko war a fay te gisuñu seen i salaire démb lañ ko xam ne si janox taskatu xibaar yi sa biir université bi la ñu ko wootee nee nañu nag autorités yi nañ leen ñàkk fulaalee loolee bokk na si leen métti te amuñu benn statut bi nga xam ne dafay sécuriser seen mu xëy ñu teew lu sa El Hadj Ibrahima Kamara. boo xoolee depuis korité bee passé ñun vacataires yi. bu dee dafa am ñuy fay fii nii ñëpp nay fay ñëpp nay sécuriser seen salaire yi sauf ñun vacataires yi mu doon situation boo xamante ne bu ñu metti lool la ndaxte ñëpp ñoo gis fii nii bu ñu nekkulee ay père de famille ay soutien de famille nañ ñu ngi déglu autorité bi ñu xool ndax fii ak fan yi di ñëw dina indi ay changement si lu ñu ko laaj bu dee nag gisuñu changement ah examen yi ñëw dugg nii de dina perturbé wu te dañoo bugg tamit ñu alerte opinion publique bi. boo déggee ñi ne université Assane Seck mënul fexe ba jeexal année académie bi maa ngi koy fàttali deux mille vingt deux mille vingt et un bu ñu nee vacataire ñu xam ne que autorité la parce que ñoom ñoo góorgóorlul pour ñu mettre dans de très bonnes conditions ñu liggéey. ñeneen ñu bëgg woote doxum ñaxtu moo di ci wàllu politique coordination de l' opposition euh, bu pekin ñoom nag ëllëg ci àjjuma ji. doxum ñaxtu la ñuy wootee ndax nee nañu nag faaw ñu xoolaat résultat yi nga xam ne euh, moo euh, ruusandee ci jongante gox xaat yi ñu dëgmal rawatina ca euh, élection départementale yi foofee sa ville bu Pikine Cheikh Dieng ay ñoñam nee nañu nag dafa bëri ay irrégularité maanaam la nga xam ne nii bëri na ci la ca lëndëm te ñu bëgg ñu saafara dugal nañu seen recours te am nañu sa yaakaar ñu teelu sa Lamine Gueye coordonnateur de la République des valeurs foofee ca Pikine ndax Nanko Bakayoko. juguñu ne dañoo mais dañoo bëgg li waa Pikine voté PV yi génn ko nañ génne PV yi mooy liggéey bu am solo bi ñu def déposé ko aussi de la cour d'appel PV yu bari yi ñuy ani yi ñuy wax yëpp boo jëlee suffrage valablement exprimé ci misaal bu ñu nee 100 répartie des candidats day nekk 140 120 130 interpeller encore une fois notre justice lii bu jàllee mooy wane na bu benee élection bu amee lu waaye bëgg a faj na nga ko fajal sa bopp ci jour élection bi recours amul njariñ ci seen taxawaay lay des pour victoire bi ñu delloo ko seen loxo. projecteur yi mi ngi jëm ci justice di xool euh, dossier béton yi nga xam ne pour Pikine Nord pour la ville de Pikine dañ ko fa déposé lan moo ciy doon seen taxawaay di wax ne vendredi am nañu marche bu mag boo xam ne bi ce sera la marche de l'opposition à Pikine pour tous les départements de la région de Dakar la marche de l'opposition foofee sa Pikine Birahim euh, ñoom nee nañu euh, élection yi ñu génne daal rawatina élection départementale bi lañu la sa génne euh, d'accord ñu si dugal nañ seen recours waaw bon période contentieuse lañu nekk xam nga ñuy par exemple li xewoon fële ca Kaolack ak mhm. ki nga xam ne moom mooy directeur général bu Senelec Pape Demba bi tey attitude bi mu am ci fin bi ne ni finalement bàyyi naa comme dama déposé woon benn recours donte ban sur ce plan la man li nekkoon sama problème mooy recours du suspensif. parce que dëgg la naam mën na def recours mais warul tax ba ñu war a mën a installer ki nga xam ne moom la wax ni euh, ci en tout cas euh, mhm. lu soxal mbirub euh, officiellement ni moom moo gañee donte am na ay recours lu ñu koy waxee lu jëm ci Pikine tamit muy ak ci yeneen localité recours opposition comme pouvoir am nañ sañ-sañu def ko gis nañu xew ci pikin gis nañ coow li nga xam ne xew na fële ci Guédiawaye on est toujours dans le période euh, de nu ñu koy waxeeti des contentieux yoo xamee ni sur le plan électoral faw ñu régler ko bu ñu ko defeewul ci tribunal daañu ko defee sur le plan politique euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, comme waa Pikine waa Wallu li ñu wax ni ñoom dañuy dem def benn doxub ñaxtu avant loolu Kaolack benn zone dafa woowoon sax ay ay mbokkam def li nga xam ne moom mooy marche parce que attitude politique la on est dans le temps de la politique c'est tout à fait normal mais dafa am moment boo xamee nag lii yëpp dañ ko war a dépasser <coughs> nañ ko régler une bonne fois pour toutes ñu xam ne diw moo gagné officiellement installé nañ ko mu war a tàmbali liggéeyam wala kële moom moom moo perte mu xam ne perte na mu dem toog li ñaan defaruwaat parce que mu ngi am yeneen i élection wala yeneen i joutes électorales yu war a ñoom ak yeneen i rendez le plus important tey mooy askan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yooyu les gox ñoom ce que ce waaye équipe bu fa mën a nekk équipe municipale wala département bu mu mën a doon wala région ku ko mën a nekk tamit mais nañ tàmbali liggéey parce que ñoom ñoom ñoo soxla euh, li nga xam ne moom mooy liggéey bi gaaw parce am nañu ñoom seen i bi comme ni ko Birahim waxee loolee lu am solo la ndax nag élection yi weesu na te am na si ñu xam ne ba léegi mën nañoo démarrer liggéey ndax recours bi ñi ñoom doxum ñaxtu la ñu wootee laaj. waaw euh, sañ nañu ko waa wàllu sañ nañu ko. bu euh, fekkee surtout. Euh, docteur Cheikh Niang ni mu ni mu ŋànk ci li mu ŋànk mhm. ni du ciy dellu gannaaw benn yoon euh, man am na ay précision yoo xam ne moom ci boppam moom ma ko yónnee ci lu tukkee ci bureau de vote yi ak résultat yi ni mu ni mu tëddee nga xam ni yow boo ko càmbaree da ngay am même avis ak moom ci li mu jàpp ni hold up électoral dafa am mais comme yoon mu ngi mu ngi def liggéeyam def na recours gëm na ko pour am ci daa xëy na dina am euh, suite xëy na ci wàll boobu mais comme ni ko Birahim waxee warut mën a te ñu amal liggéey bi ci mu ni mu jaadoo comme li amoon diwaanu Kaolack nga xam ni démb ñu bëri dañu rafetlu décision bi nga xam ne bi tey bi tey jël na ko benn yoon bàyyi benn jalu monté ci tête tête euh, conseil départemental bu Kaolack def liggéeyam ci ni mu jaadoo par contre euh, li tënk collectivité territoriale yi ngir mu dox bon je pense gouvernement bu Sénégal daf ci bàyyi xel bu baax parce que bu ñu jàppee ni loxo président Macky Sall dugg na ci situation bi am ci Kaolack pour dal am fa conseil départemental bi liggéey mais noonu maam la ñuy interpeller président Macky Sall pour mu dugal loxoom ci situation bi nekk ci Guédiawaye ville dañu koy sàggane mais la fa am du caaxaan du du du sax ëldëb mais xam nga lan la addu kalpe nangu mhm. c'est-à-dire ni ñuy ni ñuy def Ahmed Aïdara ci wàllu doxalin benn jeune journaliste bu dugg ci mouvement. xemmeem jiite dëkkam ba foofu yàlla def mu gagné. maam xoolal juróom-ñetti maire euh, Cheikh Sarr ancien maire ville Guédiawaye la woon. di buuxanteeg Ahmed Aïdara pour nekk adjoint au maire lan la ci cherché. Euh, Aïda Sow Diawara nekkoon maire. Mhm. di buuxante pour nekk adjoint bu Ahmed Aïdara Alioune Sall. mi ay dara buddi buy xëccoo pour nekk trois troisième adjoint au maire ah waaye ku amuli tànk bu leneen kaa ñu xeex gayn mm. am na fu mu toog lan lañ jublu ci loolu sa euh, Sadikh kan mi nekkoon maire te jóge fa moom itam mm. mais maire ville Guédiawaye laa la wax di xëccoowaat pour nekk adjoint au maire Aliou Sall sa Sadikh Kane Racine tàlla nekk maire benn commune bu bootu ci ville bu Guédiawaye actuellement ni nekk maire bu Wakhinane bëgg a nekk adjoint Ahmed Aïdara euh, Alioune Alioune Alioune Alioune Alioune Badara Faye nekkoon ancien maire bu Wakhinane Beydi Ba nekkoon maire Gounass Mor Waré Gueye nekkoon maire Ndiarème Limamoulaye ñooñu ma la limal ñëpp juróom-ñetti ponkal yoo xam ne ku ne da ngay xëccoo pour nekk adjoint maire Ahmed Aïdara te mu hmm. teg teg ci seen bakkan loolu mooy lan ñetti ancien maire ville ni amee fa bëgg ak bañ bu fekkee dañuy taal dëkk bi daañu ko taal bu ñuy yàq conseil bi daañu ko yàq suñu bakkan lañ ci teg amul mu ñu jaralul ba Aliou Sall egg ci naan ku doxati sama kanam dinaa dinaa la massacrer. ñu toog bàyyi ko noonu dañuy interpeller président Macky mhm. na ñu bàyyi ki gañe mu doxal mu doxal ñu bàyyi conseil yi ñuy ger ci wàllu xaalis pour bëgg a gañe ci ba ñuy voter pour fal bureau bi nga xam ni maire bi demandé waat na ci euh, préfet bi pour ñu def ko. Mhm. alxamis bii ñu dëgmal. pour bu ñu ca yeggee muy am alxames tey bu bu dellu see bu ñu ca yeggee du ñu permettre ñooñu nga xam dañoo nguur ba doyal mais lànk ni ko gañe du doxal. mais mm, président Macky Sall intervenir ak Kaolack nekk intervenir fii Géejawaay fakastal gi ci ñoo xam ne ay mag lañu fallu falluwaat falluwaat ay ñoom Cessa ay ñoom Bokar Sadikh mais ana Aliou Sall teg ba kenam ci wut ay conseil ni faw mu nekk adjoint ay Aïdara mais pour lan yow buddi nañu la gañe nañu laa xiit mu laa na doo dem. loolu waa léegi bu ko amet ne léegi d'accord adjoint au maire nga léegi xam nga lu ma lay dénk raxas douche yi ak yooyu noonu c'est gestion wu douche yi nekk ci marché bu Guédiawaye lu mu ciy man <laughs> mais il faut ñu bàyyi caaxaan yi ñu bàyyi xale bi mu liggéey gis nga amul question par parlo fii képp ku ñu fiy song ci song goo xam du dëgg ñi lay song mu moomuñu réew mi daa ñu leen wax ni moomoo leen réew mi ñu ne noonu lañ doon dénoncer li bi tey doon def ci ci ci benn genre lu président Macky Sall jël na décision moo tax dañuy interpeller président Macky Sall. Mhm. nañu bàyyi seen xëccoo gu salte gi nga xam ne nguuru nañu ba doyal te ni xale bi du nguuru nguuruwul day liggéey si mënuñoo fexe ba du def résultat. daañu continuer di ko dénoncer nag parce que xeexu maa tey commune yëpp a ngi que ñoom mënuñoo gëm ni Ahmed Aïdara war na leen a gagné et on laisse ñu bàyyi xale bi mu liggéey. en tout cas ñu xëyal ñoom ba mu nekk maire ba doyal. Uh-huh. ñetti ancien maire ville cent compter maire yu ndaw yi ni faw affaire bi du dox du dox. pëndal pëndal pëndal ni xëy na bu jaaxasoo taatak ñu indi fa délégation kenn du fa indi délégation spéciale daañu bàyyi ngóor si mu doxal. xalaatuñu loolu sax. dañoo moom nit ñi. le cri de cœur d'El Hadji Mamadou euh, Mansour Diop le député du peuple foofee sa Guédiawaye sa diwaanu Kaolack xam ngeen ne kon réeroo amoon na fa sa conseil départemental ba bi tey ma nga xam ne moo jiite lekk euh, dafa dugaloon ab recours na dañu ko gagné mujj na nag jëlaat recours boobee bàyyi nag ñu installé euh, kii di Ahmed Youssouf Ben Jaloun ñu teewlu sa Alioune Kane. directeur général bu Sénélec di Pape Mademba bi tey moom daal retiré na recours bi nga xamante ne dugaloon na ko gannaaw proclamation provisoire résultat yu tukkee ci élection locale yi ñu génn recours boobu le nag moom moo indi woon ay jafe-jafe ci wàllu politique fii ci diwaanu Kaolack ndaxte mouvance présidentielle bi ak it ñi fare ci coalition ànd nawle ànd liggéey bu Serigne Boub ñoom daal réeroo nañ bu baax a baax bi nga xamante ne bi recours boobu le dugg na te recours bi sax moo tax ñu annulé installation Ahmed Youssouf Bengelloune ci conseil départemental bu Kaolack loolu nag ñi ànd ak kii di Ahmed Youssouf Bengelloune naqarlu nañ ko bu baax a baax donte juge bi sax moom moo jox ndigal préfet bi mu annuler installation bi ay déclaration de presse ak it ay marche sax gis nañ ko fii ci diwaanu Kaolack rawatina ci wàllu ñi féetoo ak Ahmed benn Bengelloune ngir daal wane ne ñoom victoire bi ñoo ko moom te duñu nangu kenn jël ko seen loxo mouvance présidentielle bi it ñoom it def nañ li ni mel ngir daal wane ne ma Mademba bi tey moom mooy ki nga xamante ne moo gagné département bi waaye nag li xew li mooy kii di Pape Mademba bi tey recours bi nga xamante ne dugaloon na ko retiré na ko ci kaw li ko président Macky Sall digal loolee ndaxte président Macky Sall dafa gis ne recours bi ay tension politique rek lay indi ci diwaanu Kaolack donte sax meer yi nanguwuñ ko Pape Mademba bi tey dafa décidé daal retiré boobu le mu tourné nag benn page bi nga xamante ne marqué na histoire politique fii ci diwaanu Kaolack Pape Mademba bi tey woo na nag Ahmed benn Bengelloune daal di koy félicité te it nangu na lii di defetam mu ngoog Ahmed Youssouf Bengelloune gannaaw nag euh, ba ñu ko euh, félicité ba noppi moom jëfal na euh, président de la république président Macky Sall ndax xam na ne peut-être moom moo nekk def sa ay jéego ba lépp antu ba noppi jaajëfal na Serigne Mboup Ahmed Youssouf Bengelloune ay kàddoom ak Mouhamed Diop. suñu njiit mu yëpp président de la république bu mu ko la ma ne ma naa lan woo incha allah rabi dinaa fexe ba nuñ ko saafara parce que man injustice bëgguma ko. wax waxam ju rafet wax dëgg yàlla ñu ngi sant ci taxawaayam. wan na ne njiit gi dégg déglu ak la. donc maa ngi sant Serigne Mboup suma mag suma xarit monsieur le maire di ko ñaanal yi moom it na yan bi woyof ci kawam ci taxawaay bu am solo bu am ci xeex bi. bu combat bi commencé ba tey taxawut wax dëgg yàlla joué na ci rôle bu am important donc maa ngi delloo di leen sant. voilà di anu kaw nag du ñàkk sax sànq ñàmbaas ngeen si tuuti rek laal ngeen ci waaye nag euh, ñëpp jàpp nañu kon kii nga xam ne moo di bitee nag mu doxalee noonu la élage baax nangu ki gagné mu gagné nga bàyyi mu doxal mu mu doxal liggéey mhm. à plus forte raison moom kilifa gu toll ni moom bitee xam nga di di di su ni ko ci ay ay xaj yi mbaw ak yooyu du ko sax honoré <laughs> pratiquement vraiment na bàyyi benn jàllu mu doxal euh, surtout ñoom ñoom dañu xam nga li Sénégal mënut a nangu mooy koo xam ni xëy na du opposant sax bu radical xam nga sëriñ bu amul am na xemem te fu suqali diiwaan mais amul jotu nekk sur le terrain di politique di dóor ak daanu ñi dem ci listam gagné bàyyi la doxal liggéey mhm. et puis bii tey mu ngi soog dugg ci wàllu politique lii daf koy permettre mu am expérience boo xam ne ëllëg dina mën a tabax base politique boo xamante ni bi kenn du ko mën a détourné Kaolack parce que bii tey bu bu tabaxee base waajal ko comme ni mu jaadoo du sax xëccoo ay président conseil départemental mhm. mais maire bu Kaolack lay lay maire yi ba lay lay lay teg ay mais comme daf ciy soog a dugg nag amagu ci expérience ñu gagné ko foo mu nangu. donc ni mu mhm. def nii moom moo gën a moo gën a rafet. vraiment moom dañ koy dañ ko ci. dañ ko ci waaw non je pense que euh, li mu def moom la war a def je pense que am na journaux yu ko bind sax ne c'est une question de grandeur mais euh, bay le problème mooy li ma wax sànq il faut que nit ñi ñu mën a commencer seen liggéey muy jëm ci mairie conseil départemental parce que li tax mu am soppeeku askan wi jël décision wu ñenn ñi ñuy sanctionner leen. négativement ñeneen ñi positivement mooy ñenn ñi nga xam ne dañu gañowaat seen localité muy mairie euh, ci commune wala muy ville wala muy département ñu jox leen ñu dénkaat leen ko c'est juste parce que askan dañoo bëgg la ñu tàmbali woon ñu àggali ko ñi nga xam ne leen soppi askan dañoo bëgg ñu indi beneen xar kanam bu bees ci seen localité mais lépp askan wi la war a dallu mooy fexe ba liggéey bi mën a tàmbali te je pense que loolu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ay expert ci wàlluk élection wala expert euh, ci wàlluk euh, ay décentralisation yooyu am na loo xamee ni jot nañ ko waxtaane moo indi ñu soppi mode de scrutin bu jëm ci wàlluk élection territoriale moo nekkoon lan dañoo gisoon benn constat mooy askan wi dañuy ne ni tey mambay lu ñu bëgg fal pour mu doxal ñu suñu dëkk waaye bu ñu demee ba tànn mambay ci wàlluk ay list ñu dem ay conseillers soppi ko mhm. jël Mamadou euh, Mansour Diop def ko maire alors que le choix des populations mambay moo ko moom moom moo nekkoon seen choix euh, muy gouvernant yi di politique yi gis ñu loolu doxul ñu indi mode de scrutin bu bees ne ni ci élection territoriales yi askan yi ñoom ñooy tànn seen bopp ki leen di jiite mais xam nga paradoxe bi mooy leen askan wi tey ñoom ñoo tànn ay dara pour mu jiite géej Guédiawaye mais paradoxalement du ñoom ñooy tànn ñan ñoo war a ànd ak moom pour mën a doxal liggéey bi donc tànn nañu kenn pour mu jiite tànn nañu euh, sëriñ bu pour mu jiite ca Kaolack waaye ay conseillers yi war a ànd ak moom ci liggéey bi mën ko indil ay dëgg sërëx mën a bloquer li nga xam ne moom mooy liggéeyam ñooñ du askan wi moo leen di tànn je pense que am na lu ñu mën a rectifier peut-être au fur et à mesure wala fil des ans ba nga xamee ni conseil municipal bi yépp wala ci département wala ci ville wala fu mu mën a doon askan wi ñoom seen bopp ñoom ñoo koy tànnal seen bopp dootul doon loo xamee ni yow maire bi dong ngay tànn en tant que maire wala président conseil départemental wala maire commune wala maire ville mais même ñiy ànd ak moom muy équipe municipale bi war a ànd ak moom yow da nga koy tànn yow en tant que citoyen wala population ca localité bi ba nga xamee ni blocage yi nga xamee ni nemmeeku nañu ko wala dinañ ko nemmeeku parce que y a dans certaines localité foo xamee ni maire bi ci opposition bi la nekkoon tey moom moo nekk ci pouvoir li ci pouvoir bi au plan local mais ñi ànd ak moom ñëpp opposition lay doon au mhm. local ñu indi ko cohabitation mooy yow loo tànn tamit wala loo bëgg a jël comme décision ñun ñi nekk sa opposition au plan local mën nañu ne ni du du jàll lool lan lay indi blocage donc Euh, le citoyen a choisi son maire wala le président de son conseil départemental mais n'a pas choisi la politique bi nga xam ne moom le maire bi war a def wala président conseil départemental parce que ñi nekk ci ginnaawam ñëpp ay opposants la ñuy doon mhm. au plan local donc liggéeyam du mën a Euh, le député du peuple faw nga ñambaas li tuuti rek juste quelques minutes rek une minute rek ci hôpital Matlaboul Fawzeyni li nga xam ne li moom maam tayef la rek ñetti weer ngi ndox amu fa euh, lii moom tayef la hmm. non bu leen neexoon benn fan tey tey mu am ndox benn fan tey doyu leen pour am pour mu am ndox am na ay forage yu ndaw yoo xamante ni bi un million un million kese man dama ci def lu benn devis pour en ci laa amee information yooyu. un million kese mën nga am benn petit forage bu ndaw bu fonctionnel ci benn espace boo xamante ni bii espace su bi. pour nit ñi fay ñëw. fa am ndox foofu. foofu mën a am ndox. mu mu ñu mën di jëfandikoo ci toilette yi cest di que manque d'ambition la ak manque de volonté ak ñàkk respecté ñi fréquente hôpital. loolu dafa dafa jaaduwul ci gestion bu baax xoolal hôpital bu mucc ayub biñ tabax Touba ba léegi mënuñoo am ay fajkat yu fa dem moi je pense dama foog ni nguur gi fi nekk nii nguur gi dafa am dafa am dafa am dañu am complexe ku man dara bëgg investir ci réew mi néew na ko fi tabax école bu baax wala hôpital bu baax pour ay fajkat yu fa nekk ñu taxaw la ci ni mu jaadoo am réew nag balaa mu développé état dafay def bàyyi bàyyi keneen koo xam day def ngir yàlla def jébbal état réew ma tamit def def jébbal état mais boo tabaxee jébbal état du ci yëmu indi benn solution da koy da koy téye comme ni muy doxale mais réew mi noppeegul ngir dem dëkk bi ñu bëgg a soppi wàllu politique ba kenn joxee xalaatam moo fi dul am nit ñi dañuy dénoncer doxale lu ñaaw yi lalul ci lu dul politique mhm. politique rek jaajëf jaajëf politique li ma war a mën a dakk ci bépp secteur dénoncer kenn moomul dëkk kenn moomul dëkk ba boo fi defee lu dul yoon duñu ko dénoncer kenn moomul dëkk bi kenn ko ci lu wér par parloo ci wàllu politique gars yi bàyyi la ci noonu noonu noonu mu simple noonu noonu rek Sénégal yi di gën a suuf souffrir ceeb bu yokku na diw gi yokku pont yokku amul lenn looy laal Sénégal te yokkuwul suuf si yokku tey fexe na ba le le cours du blé au plan international yokk na pratiquement plus de quinze pour cent ça veut dire que ñun ñi nga xam ne ñun dañuy importer blé mhm. pour def ci mburu mburu bi day yokkuwaat faw ñun ñu subventionné état du Sénégal subventionné boobu le blé <laughs> mais ñaata temps la koy subventionné ba mu koy ba mu egg nga subventionné Birahim na teggi taxi yi ciy laxasu industrie yi nga xam ñoom ñooy importé blé di ko indi fii di ci defar ay farine di defar yeneen aliment ak nangam ak nangam mais am dox seen diggante ak état na état bi loolu ba noppi exigé leen aliment de bétail sax hmm. industrie dañ ko yokk mais yokk repas ak aliment de bétail xam nga di nga yokk farine ah, te loolu nguur gi moo leen war a te gis nga boo waxee industrie nga xam ne ay nationaux lañ nga waxtaan ak ñoom man am naa chance def waxtaan bu yaatu bu ma séq ak Babacar Ngom ci ay question ci wàllu boobu noonu mais bu ñu la joxee les détails da xam ne bu du woon benn benn sax nationaux yooyu di xaw a bañ bu doon ba léegi dafa nekk ci loxoy étranger yu implanté wu fii Sénégal mais kon dëkk bi tukki àdduna tukki na ñooñu ñi fi nekk si néewti ay nationaux ay ñoom Babacar ngoom ay ñoom élément mm-hmm. bu yeboo ñu sant leen de li muy yokku ko si néew teewul li ñuy bañ moo tax mu bañ a fekk si njëg gi nga xam ni moom la étranger yi saxal moo xaw moo tax moo tax mu xaw a tane de mais suñu état bi nag li mu fi jëriñ mooy am lu mu teggi leen ay tax mais am lu mu leen exiger nëgën sii daaw yaa ngi annoncé teggi gu mu teggi woon ay ay mm. ay ci wàllu farine bi ak yooyu noonu mais teewul dugg nañu roq génn dugg roq génn bilaam bi ñu yokk mburu mi bi ñu ci yokk vingt cinq bele bi yokkuwul woon mm-hmm. pétrole bi yokkuwul woon alors fii trois mois pétrole bi ak bële bu wàccee lu tax njëg gi wàññeeku ci benn yoon loolu mooy problème mu Sénégal gestion la amul daa mel ni moolu dagg te kenn du ko wax <laughs> jaajëf rendez-vous kon si seen émission tës El Hadji Mamadou Mansour la député du peuple ci kanam tuuti bu 9h jotee seen émission tës si Zik FM Birahim Ba rédaction ñu ngi lay xaar ndax xaabaabal nañu aca ñu dala Pape Matam bi tàggat yaram borom jam siti yax dugaar Pape Man Tëmbub maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax. naka yitee. alhamdulilah borom département bi. waaw loolu dafa leer moom. waaw ah, leer na de yaay borom naka yu tëy yeex lijjanti yi. ah jamono ñu toll nii est-ce que yu tëy yi ëppuñ sax. Ah, waaw loolu niru na ko nag. niiru na ko nag niiru niiru na ko nag de. kon na comme yaay borom yaay borom département bi di nga régler problème bi. affaire naa ci solution amul benn problème. amul benn problème waaw CAN féminine Maroc 2022 qualification sunu euh, gaynde yi jamono ji de politique bu yees si wàllum fédération bu football féminin bi jamono ji ci loolee la ñuy dox. waaw ci loolee la ñuy dox kon nag mun nañu wax ne sax li ni mel commencé na nag indi ay résultats yu positif gannaaw ba Sénégal nag euh, fukki at ci ginnaaw. la gëjoon nag dem ci coupe d'Afrique des nations ci wàllum jigéen ñi kon nag ñoom ñi lay nag dinañ ci delluwaat ci Maroc 2022 mu nekk nag li nga xam ne kii di directeur technique national bi di Mayacine Ma rafet na ko bu baax a baax gis na nag kon euh, politique bi bi nga xam ne fédération bi jël na ko ngir nag gën a euh, jëmmal li jëm ci wàllum footballu jigéen yi moo ngi dox bu baax a baax dikk noonu sax moom àdduwaane na jëm nag ci double confrontation moo dox ci diggante ak Égypte jàpp euh, lu jëm ci wàllum coupe du monde Qatar 2022 ñu jàpp ko ci weeru mars ay kàddu Mayacine Mar la ñu teewlu. féliciter les lions qui sont qualifiés à la coupe d'Afrique féminine je pense que loolu day wane également aussi que yoon bi ñu nekk yàlla buñ ci gaaw a jóg yàlla def ci ay qualification mais ñu ay trophée ci wàllu mag ñi ci wàllu jigéen ñi ci wàllu xale yi également aussi et je pense que loolu ñu ngi koy liggéey et incha allah am naa yaakaar ni que ni fii jëm en tout cas. bànneex ak mbégte rek la am incha allah je pense que tout ceci pour montrer qu'effectivement qu'à ce niveau également aussi il y a un travail qui est fait. Et on est en train de se on est en train de discuter on est en train de voir mais on est dans, le match déjà mais pour le moment pas donner en fait une, information officielle par rapport à ça mais il est clair que donc par rapport à ces deux matchs là on est en train de réfléchir et de se préparer. ayca ñu waxtaane wala maa ngi lire commentaire yi ci ci Sen TV l'officiel championnat local onzième journée euh, ci week bi lay doon muy Ligue comme Ligue 2 waaw dinañ ko doox nag niki kon ci week bi jàpp nag onzième journée Ligue 1 bi nga xam ne nag samedi la ñu koy door ak ñaari jogante ca stade Fodé Wade 16h30 kon jàmbaar moo fa fas yéene dalal ñi di waa ay sa douane ci boobule waxtu sax si la ñii nag euh, di Tëngéej FC di la dalal foofu ca Ngalandou Diouf ñi di waa Linguère bu Saint-Louis ñu fas yéene ko nag euh, jeexal ci dimanche gi ci diggante US Gorée ak AS Pikine loolu ci stade municipal bu Mbaaw la lanterne rouge bi maanaam euh, ki nga xam ne équipe bi nga xam ne moo nekk ci ndaddeelu place bi mu ñaambur bu Louga moo fas yéene dalal ñi di waa Casa Sport foofu ca stade Albouri Ndiaye ci nag euh, dimanche gi ba tey choc wara dox ci diggante Guédiawaye FC nekk si ñetteelu place bi tolloo ki poñ ak ñi di waa génération foot ku nekk am fukki poñ ak juróom-ñett ñoo fas yéene laale foofu ci stade bu Amadou Barry Dakar Sacré Cœur moom day dalal ñi di waa Jaraaf bu Ndakaaru foofu ci stade bu Alassane Djigo di fàttali sax ni Jaraaf moom ni ki démb nag la fësal ab communiqué ngir nag xam ne dina dugal ab recours gannaaw nag ba commission bu discipline bu ligue bi daanee ko lu toll ci million ak euh, benn match bi nga xam ne. ci digganteem ak kii di AS Pikine la woon si lu bëccëg bi mu amoon ci sax ab défaite jaraaf daal xam ne nag dina nag euh, dugal ak recours ndaxte li ko waraloon bokk na ci ab penalty bu arbitre bi sifflé woon tam amoon nag ay nag réeroo yu doxoon ci diggante supporters yi ba dañuy mel ni mujj ko euh, neenal kon jàppoon Ligue 2 bi nag euh, ñoom tamit dinañ amal seen fukk ak benneelu bëccëg ci euh, samedi bi euh, Sonacos moo ci dalal ñii di waa Kër Madior Dakar Université Club ak jamono bu Fatick lay doon port autonome bu Dakar moom euh, fii lay fas yéene fekki ñii di waa US Ouakam Thiès FC ak Renaissance bu nag Demba Diop moo ci laale ak Oslo FA ci diggante NGB ak ñaari tari dimanche lay doon leader bi nag di Waly Daan moom day dem foofu ca Mbour ngir nag jongante ak ñii di waa Stade de Mbour bi nga xam ne waxtu yi ñoom ñaar sax ñoo tooloo ki ay poñ ku nekk am nga ñaar fukki poñ ak ñaar ñu waxtaanee Ligue des champions nag ñu bàyyi la nga jox ñu résultat complet yu huitième de finale aller yi waaye également ci Premier League bi gis nañu Sadio Mané moo nekk deuxième meilleur buteur africain. waaw démb nag la ñu ndar képp lu jëm nag ci wàllum huitième de finale aller ci Ligue européenne des champions jongante yu am solo amoon na ci démb sax jàppale nag Atlético Madrid moom dafa def match nul ci digganteem ak Manchester United ci dëkkam benn benn la ñu def Ajax bu Amsterdam ak euh, Benfica bu Lisbonne. ñooñu nag deux bi partout la ñu def Juventus di fàttali que ni moom dafa defoon match nul tamit ci digganteem ak Villarreal un bi partout moo daanoon Lille ñaari ball ci dara Paris Saint-Germain tamit daanoon ñii di waa Real bu Madrid nit ki benn ball ci dara mardi bi génn. Manchester City moom daanaka sax ñu bëri jàpp nañ ne fu mu toll nii war na mën a qualifié ci quart de finale ga gannaaw ba mu amee woon ndam lu yaa ci kaw Sporting bu Portugal juróomi bal ci dara Liverpool bu ñoom Sadio ñoo daanoon euh, ñii di wax Inter bu Milan euh, ca dëkkam ñaar ca dara RB Salzbourg ak Bayern Munich moom dañoo defar match nul un but partout Sadio Mané boobu la sax ni ki démb kon euh, ci match en retard foofu ca Premier League moom dugal na nag ab doublé ci digganteem. ak Leeds Leeds sax Liverpool moo ko mujjee daan juróom benn ball ci dara kon waxtu wi ñetti poñ rek moo dox seen diggante ak Manchester City bi nga xam ne moo nekk ci boppu championnat bu euh, Angleterre Sadio Mané sax gannaaw ba mu dugalee ñaari but yooyu la kon waxtu wi nag euh, ci Angleterre am na fa lu toll ci cent 106 but nekk nag lu joueur euh, ci ginnaaw Mohamed Salah moom nag sooy koy saytu sax moom Mohamed Salah am na lu toll ci. cent quatorze buts waaye nag euh, lu ci bëri bëri na si ay penalty loolu muy nag euh, quinze buts yoo xam ne penalty la am waaye Sadio ci cent six buts mi amul ci benn penalty ba tax na mu waxtu wi raw na nag euh, kii di Didier Drogba nekk tamit ab légende football Afrique nekkoon foofu ca Chelsea Didier Drogba cent quatre buts la am kon yeneen jongante yi nag Burnley moom dafa daan ñi di waa Tottenham démb benn bal ci dara. Watford bu ñoom Ismaïla Sarr ñàkk ci kanamu euh, Cheikhou Kouyaté bu Crystal Palace kon ñeent ci benn kon tey jii nag la ñuy ndar kepp lu jëm ci wàllum match en retard yi foofu ci Angleterre 19h45 Arsenal ak Wolverhampton Bambey li moo fi gënoon fës ci xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek 12h ci Zik FM fas yéene ci ànd ak Birame Diadio Touré 13h El Hadj Mouhamadou Mansour lay doon jaajëf. jaajëf pa Manta Mboup ni mu ko waxee rek ci Zik FM 89.7 suñu jotaay xibaar dana fa dikk jox leen lépp lu soxal wàllum tàggat yaram pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay li yéen kaay xëy fësal lay doon ax wax Mantulaay Cibundooy ban jaaxle day ku fa toog jamono ji président Macky Sall ngay wéttali tribune yéene kaay daal di may xamal ne président Macky Sall day falu premier ministre la bëgg saa si tembe loolee dafa mel ni nag bokk na li ko gën tëj ci réewum Sénégal yéene kaay bi dee bi xamal ma ne mu toll nii kay Macky Sall day hésité ci kan la war a fal premier ministre ndax nag ay plangam dafa soppeeku gannaaw élection locale yi ak ñàkk gi nga xam ni bari na ci gox yoo xam ne yu am solo la tey it nguur gi da koo ñàkk fii ci réewum Sénégal le quotidien le quotidien xamal ma ne tey nag laa lay xamal lan moo tax nag premier ministre bi deesu ko mën a fal ci réewum Sénégal dafa bëri ay ponk de yéene kaay bi ne ma bankal sa baaraam président Macky Sall li ko tënk ci palu premier ministre bi bokk na ci nag ñun doon xaar mu fal leen muy Amadou Ba ak Amadou Xot ñoom ñaar ñëpp dañoo ñàkk ñii xaar mu fal Aminata Ñaan it koo xam ne laalewul daanaka ak langue politique gi waaye nag ndax bu falee ab technocrate mën na am la Mouhamed Boun Abdallah Dionne amoon 2017 bu falee premier ministre mu laaj ab soppite gouvernement te soppite gouvernement dana rëppatal ñoo xam ne ñu nekkoon ci feggam lante ñàkk ku ci mel ni Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Xot Abdou Karim Fafana Arona na Ndoffène Diouf wala sax Zahra Iyane Thiam te ñooñee bu leen génnee ci gouvernement gi ndax dana baax ci moom le quotidien le quotidien xamal ma ne foofee ca Thiès it ba Diattara ab jege ñaale Idrissa Seck bu nu soppee dafa ñàkk Thiès war na mën a ñàkk waaye bu ko soppee ndax mburoog soo mi ba tey dana far te bu ko fa bàyyee it mbaa la mu amoon Thiès tig ñàkk du wéy di ko am moom président Macky Sall yéene kaay bi ne man leneen li yeexal palub gouvernement gi Macky Sall nee na saa bu ma soppee gouvernement ñàkki xarit ci waxtu woo xam ne war na fal premier ministre moom Macky Sall ministre yi ne damay soppi gouvernement gi boobaak léegi defu ko te bu falee premier ministre bu bees dana xaar ay weer laataa muy def déclaration de politique générale le quotidien le quotidien ne ma moo day élection législative yii ñu ngi ko jàpp ci weeru sulet te saa bu élection législative weesoo dañuy seyal gournement gi laaj ba samp kay mooy ndax jarati na ko yooy la élection législative direct news ne ma Antoine Félix Diome day war na dajeek parti politique yi ngir ñu xool caution élection yooyee ñaata lañ koy samp laas ma Paul Dénon Alié day ña ngay sàkku ñu joxe juróomi million ngir mën a bokk ci yooyu les élections le témoin yéen a kaay ni ma mbaadu président daf fa faf jaaree juboo ak jeunesse am docteur Abdou sociologue ne Macky kay ci ndamu gaynde yi daf cee nooyi waat dëgg-dëgg Marème Faye Sall mbaadu moo nekk ca palais ba nekkub influenceuse bu mak pour Macky Sall en tout cas bari nañu sopp président moom moo tax yéen kaay bi xamal ma ne Abdoulaye Diaw moo doon firnde ga keroog ndax xamle na ni bu teewee ci stade bi yàlla ak fay Sall la Macky Sall day gaay jox nañ ko bopp fi mu ne waa ji nag di gën a duufal àndandoom mi ngi ci xam ni xamuñu kañ lay moom mi ngi débauché gaa yaa ngay transhumé terewul critique yéene kaay xamal ma ne moom président Macky Sall day dëgg dëgg jamono jii mi ngi nag ci mbégte de ak Coupe d'Afrique beeg bu bees bi waaye nag fàttewul jafe-jafe yi nga xam ne réew mi ci la tollu saa nekk muy jafe-jafe yoo xam ne ñu koy xaar moom président